juróomeelu xaaj bi ci juróomi xaaj yi yeesu moo yilif dee itam linjil wax na ci mbiri nit ñu yéesu dekkil benn bés maryaama ak màrt jigéeni lasaar woolu yeesu ne ko xaritam lasaar dafa feebar bi yéesu ak i taalibam agsee ñu fekk nit ñu bare ca kër ga ndeke booba lasaar dee na ba ñu suul ko ba mu am ñeenti fan yeesu dem ci bàmmeelu lasaar bàmmeel bi am xunt la woon mu ñu tëjee aw xeer yéesu ne leen dindi leen xeer wi noonu mu ñaan wax ci kaw lasaar génnal lasaar génn ak ay càngaay yi néewam yéesu ne leen yeewi leen ko te bàyyi ko mu dem nit ñu bari gis loolu gëm yéesu waaye farisiyen yi ak xutbakat yi mer ci loolu dañu ragaloon nit ñépp tàmbalee topp yéesu te bu ko defee waa Room yi dinañu ñëw wàcce leen nangu kilifteef gi ci ñoom wala sax ñu nangu réew mi booba nag la njiitu yawut yi tàmbalee fexeel yéesu ngir ñu rey ko fii la nettali bi yem léegi ma laaj leen fukk la yeesu def bi mu demee ci bàmmeelu lasaar yeesu wax na leen ñu dindi xeer wi noonu mu wax ci kaw lasaar génnal fukk ak lu xew lasaar génn ak ay càngaay yi néewam fukk ñaar lan lanu loolu woon ci mbirum yéesu yeesu moo yilif dee fukk ak lan la fariseen yi ragaloon ne mooy am bu nit ñi gëmee yeesu dañu ragaloon ne nit ñi dinañ tàmbale topp yeesu dañu ragaloon itam ne waa rom yi dinañu leen wàcce wala sax ñu jël réew ma